ginnaaw bu ma leen nuyoo comme ni ñu koy defee chaque matin di am mbégte ak contentement jën ak yéen ngir ñu leen li gën a fës ci bopp xibaar yi laataa loolu nag damay nuyu ñu ma toogal xam naa nag gëj ngeen koo gis mais gan gi ñëwaat na Mbaye Babacar nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke fee naa la xanaa namoon la rek namm yu pata fi ma nekkoon sama xel yëpp nekkoon si yow sama rakk ji. dama lay souhaiter joyeux anniversaire ñu prolonger anniversaire bi rek jeexagul ba léegi. souhaiter le joyeux anniversaire longue vie santé de faire prospérité tous les bonheurs du monde sama rakk ji nga xamante ne bii sama rakk la wante nag sama lakkal la mooy moom sama lonko la maa ngi koy souhaiter réussite totale fanoo gudd ànd ak wér-gu-yaram di la ñaanal dimanche yu jàmm nag. ñu làngal la nga xam ne incha allah su boobaa nga xam ne am nga mag yu mët mag ñu jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow xele bu yaru la nag à part caprice yu bari yi nekk si moom ah Assane waaw nga dëgg Mbaye Assane nuyu naa la <laughs> Mbacke fay naa la di nuyu internetu Leewtoo TV di amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour jukki leen li gën a fës ci yéen nekkaay yi jeudi 4 février 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam bu njëkk guy gi guy gi mu gi rassure ses fans bastonné Reug Reug avant de le Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la guy gi mu ne fan si bu ñu tëddee. mën nañoo nelaw ba yàndoor li ko waral mooy pare na ci côté yëpp te xamal na rëg rek ne ko Singapour bokkul ak Sénégal bu ko jàppee dina ko duma dina ko daan. Mbaye Babacar ni nga waxee dëgg la noonu la ko journal bi waxee guy gi rassure ses fans je vais bastonner rëg rek avant de l'envoyer à terre. maanaam bu jàppee Reug Reug dina ko dóor ba mu tëddal boppam avant mu koy eh, daane daane ci suuf si Reug Reug eh, guy gi également wax na fa nee ne eh, à l'usure la bëgg yóbbu Reug Reug maanaam da ko bëgg a bëreloo ba mu xoox xam naa loolu nag warul yomb wala du yomb wax na également buy Reug Reug di bëre ci MMA da koy ñaanal jàmm ñaanal ko victoire ndax moom sénégalais la te yéene na ko victoire ci MMA bi mais bu dee ci làmb moom <laughs> bu mu ko xalaat wax na fa également comme euh, États-Unis la jógee nee moo géet mi nga fa invité woon jox na ko oto ak xaalis bu takku takku. ah kon moom voyage am neex na. voyage am neex na. bu ñu la seet nga doon ci sérité bi te kam dem mooy Modou Xarañ Lo le roi des arènes 4 février 2006 2006 4 février. 2021 Modou Lo fête ses mu mel ni ba mu nekkee ci arène bi ak léegi toll na ci fukki ak ak juróom xale parcelle Assainies bi di wuyoo ci Modou Xarañ loo journal bi ñëwalaat nañu ci li nga xamante ne bii moom mooy jaar-jaaram ñi mu jot a jëflanteel ci làmb wante yan jaroole yan jaloore la def ci làmb journal bi suñu làmb ñëwaat na ci bu baax a baax. dëgg la Mbaye ni nga ko waxee dëgg la Modou Lo souffle ses 15 ans dans l'arène maanaam Modou mi ngi fêté 15e anniversaire am ci euh, làmb ji moom mi ngi fi dugg le 4 février 2006 tey di 4 février 2021 muy quinze ans depuis boobu Modou Lo nag euh, la euh, journal suñu làmb mi ngi koy tuddee l'homme des trophées ndax nee na gagné na fi CLAF nekk na fi meilleur lutteur ANPS nekk na fi également roi des arènes nee na Modou Lo gagné na premier combat mi ngi ko gagné contre Papa Pape Sène waaw. mu ngi am vingt quatre combats vingt victoires trois défaites un nul. loolu mooy jaar-jaar Modou xarañ loo. loolu mooy jaar-jaaram loolu mooy jaar-jaaram naan ko ah na fi gën a yàgg affaire yi gën a neex Tapha Tine Boy Niang de choc combat bi nga xam ne Pape Thialis Faye moo ko tëgg cent dix millions pour un choc de titan. mu mel ni téeméeri million ak fukk la ñu def ci combat boobu di dox ci diggante tafaatin ak Boy Niang 2 promoteur bi di euh, Pape Thialis Faye borom Leewtoo production taxawal ko mu mel ni euh, dikkalaat nañu ci li nga xamante ne bii moom mooy moom mooy combat bi nar a dox ci diggante ñaari jàmbaar yi fàkk tëdd yooyu nar a nekk choc bu metti dëgg la Babacar loolu Pape Thialis Faye moom moo ko révélé woon wala moo ko joxe woon comme xibaar ci émission bii ñu tuddee arène sénégalaise bi am ci IT ITV moom boobu la ko fa wax léegi journal suñu làmb reprendre ko ne euh, Tapha Tine euh, Boy Niang 2 cent dix millions pour un combat de titan maanaam boo dajalee seen cachet dajale organisation bi bi war a tax euh, combat bi am boo dajalee lépp cent dix millions lay lay toll Pape Thialis tamit wax na ci émission boobu journal suñu làmb reprendre ko ci wax affaire PPV bi nee PPV bi sénégalais yu nekk étranger ñoom ñoo koy gën a jënd que sénégalais yi nekk fii ci biir Sénégal. combat bu nar a neexee noonu nañ ñaan yàlla làmb ju ubbi ñu mën koo taxawal ci kañ jëm nag mooy góor gi góor gi étudiant lutteur professionnel professeur d'EPS mu ne devenir un dirigeant de lutte. góor gi étudiant di nekk nekk benn mbër ba nga xamante ne bii mbër la wante tamit euh, professeur de d'EPS la. moom xamle na li mu bëgg ci biir journal bi mooy nekk benn dirigeant ci wàllu làmb nekk kilifa gu mag ci wàllu làmb ëllëg loolu la xamle na loolu la bëgg a nekk ci wàju ci ci làmb ji wax nga dëgg Babacar comme góor gi étudiant bi muy door door euh, nekk mbër boobu étudiant la woon mais maintenant nag léegi changé na am na fi ay lijaasaam ba nekk léegi professeur de EPS EPS moom mooy éducation physique et sportive léegi maanaam day jàngale nan la ñuy defee EPS ay xale yi nekk ci école yi. moom nag wax na fii li mi mébét mébétam moom moom mu nekk un grand dirigeant. si wàllum làmb wala mu diri un jour euh, CNG pourquoi pas wax na fa également. ne du changer tour comme góor gi étudiant la tuddoon ba mu nekk euh, mbër léegi mu nekk euh, prof EPS rek du tax mu changer euh, tour day maintenir turam boobu di góor gi étudiant wax na fa également nee na mi ngi lancé appel ministère des muy Matar Ba mu jàppale ko mu dem Europe yokki xam-xamam pour ñëwaat mën a liggéeyal réewam. mën a jëriñ réewam. am na solo mën a jëriñ réewam waaw. immigration en Gambie. kii pour mu mel ni mbër yi dañoo dëgmal MMA bi dañoo song MMA bi ak doole li ko waral xam naa mooy koppar yu bëri ya fa nekk Assane xaalis bu bari ba nga xamante ne bii nekk na ca MMA ba wante tamit suñu moytuwul làmb ji dana toxu gàmbi de. dëgg la Babacar loolu moo tiitloo suñu làmb d'ailleurs ba mu def ci benn interrogation ne qui veu la mort de la lutte. wax na dëgg nee ne ni ñu gisee mbër yi di dem ci MMA bi bëgg di dem ci MMA bi ñoom ñëpp ñu riirandoo dem fa ak la fait que euh, combat euh, saison bi démarré gul nit ñu jógee fii gëm gàm bi di bëri ji noonu nee na loolu euh, arrangé wul làmb ji fii ci fii ci Sénégal loolu tax mu ne mu intro interrogé wu ne kii veut la mort de la lutte loolu daal jaaxal na kii journal suñu làmb tiitloo na leen bën indi interogation bi nii. ka euh, xelam dal muy dalal ay xel fan sax mooy Balla des entraînements. le lion de Guédiawaye magu saa cay séeri buri bàcc li mu mel ni delloo na buum ca boy boy ka ba mu tax ripp ak xaaxam. dëgg na ci ay entraînement am. Mhm. wante tamit euh, mi ngi waajal bu baax a baax a baax li nga xamante ne bii moom mooy li nekk ci kanamam muy combat am ak Bombardier noonu ko waxee noonu la Babacar Balla gay de ginnaaw bi nu ko xamee ñun ñëpp jógee na umra Màkka ba mu fa def fa quelques semaines ba mu ñëwee nag perte temps dafa ñëwaat dellu ci entrainement yi noonu la ko journal suñu làmb waxee nee na mi ngi euh, olympique club nekk fa di tàggatu uniquement pour préparer combat bii di revanche am contre Bombardier. ca foofu la daje na fàkk nga xam te ni mooy El Hadj Diouf le mu mel ni Balla gay 2 am na am na am na ndaje ak l'international bi di El Hadj nekk de fois ballon d'or africain euh, Balla Gaye daje na ak moom waaye wante na fa waxtaanee kombaam euh, ak euh, Bombardier génnu ci. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la ko ginnaaw bi mu demee club olympique di entraîner dafa dajeek international bii di El Hadji Ousseynou Diouf ñëpp ko xam ci wàllum football mu yàgg nekk capitaine Sénégal yàgg toj terrain yi nekkoon ci Lens également. xam nañ ko fépp ci Angleterre ay Écosse yooyu yëpp. jaar na fa nekkoon voilà ñu jaar fa ñu daja fa moom ak Balla Gaye euh, journal bi nee ne waxtaan nañ lu bëri nag waxtaan na xam naa ñàkkul ñu wax ci combat bi contre euh, Bombardier comme ni nga ko waxee mais daal journal bi ne xamal daal mooy nee ne waxtaan nañ lu bëree bëri ay minutes yu bëri Babacar. fa Balla Gaye di dalee xel xel xel supporter yi ci entraînement ya Bombardier aussi mu ngi def loolu la B52 en live avec ses fans. Ah, mi ngi noonu Bombardier nekk fële ca Mbour géej mi ngi noonu mi ngi mi ngi mi ngi dalal xelu fans yi ndax eh, li nga xamante ne bii mu ngi koy waajal digganteem ak eh, Balla Gaye nee na xam na ne du nekk lu yomb. dëgg la Babacar Bombardier en live avec ses fans noonu loo ko journal suñu la làmb waxee xam naa ci weekend bi dafa organisé woon benn dañ ko invité woon ci benn groupe WhatsApp bi nga xam ne nii moom ko doon seqal ak. Eh, fans yi li mu fa xamle rek mooy euh, dal loon na seen xel nee na na seen xel dal ci combat am contre Balla bi nee na day dem jëli victoire bi indi leen un 2 0 boobu revanche nar naa neex lu dañuy dem fi nga xam ne mooy journal record Mankor Faye président du CSG de Kaolack mu ne il faut développer il faut développer le sport à l'école. Mankor Faye mi nga xam ne moom moo jiite CSG bu Kaolack moom li mu xam xamle mooy euh, il faut ñu suqali. Mhm. Euh, sport sport bi ci wàllu école bi il faut ñu jàngalaat xale yi li nga xamante ne bi moom mooy wàllu tàggat yaram ci wàllu école. dëgg la Babacar ginnaaw suñu làmb record moom tey Maam Koor Fay la xëy dalal Maam Koor Fay moom lan fal bees foofa ci tetu CRG bu bu Kaolack moom la li nga xam ne mooy pour que làmb développé il faut que ñu jël làmb yóbbu ko ci école yi ñu sàggat xale yi ci école yi pour que bu mën a développé neen daal UAC yi. benn secteur la wala benn possibilité la. Hmm. ñu mën a staggar xale yi ci beneen ndaw pour permettre ñu mën a euh, réussir ci làmb ji. Euh, Assane Waala maa ngi lay jaajëfal loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi lan ngay tàggatoo xanaa jaajëfal bu baax a baax waa Jurbel sama dëkk wante di la jaajëfal Ndeye Mbacke wante di la wax ne tamit gisaguma gato yi gis naa ñu lay jox ay conteneur yi gato rek ngay denc mais sama wàll gisaguma dara maa ngi wax xaar sama wàll ci gato yi maa ngi xaar sama wàll ci kado yi tamit maa ngi jaajëfal bu baax a baax suñu mbokk internet yi ñu doon topp ci Leewtoo TV di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm Babacar pourtant waxoon naa ko mu denca la lu leer ci kanam caméra yi. gisuma dara ah, ah gisaguma ko ah sa wàll moo ko lekk donc. su ma lekkee mel na lekk na. <laughs> d'accord Ndeye Mbacke comme d'habitude maa ngi remercier waa Linguère bu baax a baax a baax di remercier internet yu ñuy seetaan di leen dox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. di leen jaajëfal jaajëfal mbokk internet Leewtoo TV ñuy taaxee ba chaque jour li nga xam mooy revue de maa ngi leen di bëgg jaajëfal équipe technique yëpp tey moom du ma leen génn. <laughs> maa leen jaajëfal dégg naa ne ni ñëpp doon jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV leen ñaanal kenn leen jàmm te di ko sàkku ci yéen